waaw salaamaaleykum mbokki internet yu Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen bëggee alors tey nag bu ngeen ñu gisee fii ñu nekk nii mooy kër Baye Demba Faye Baye Demba Faye ndaanaan lu mag loolu nga xamante ne bii moom itam ku ko wax wax sañ si rythme ku ko wax wax tëgg mu neex ku ko wax wax ne mooy rakki mbay gay fay doomi vie sañ fay moom laa ñëw seet si ko bésu korité xool korité ngéwél nu nu koy dunde Alioune sama cameraman laa àndal topp ma ñu xool Mbaye Demba Faye. salaamaaleykum mbokki internet yu euh, Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bëggee alors di leen balu ak nag ci euh, tey jii nga xamante ne bii mooy bésu korité bi euh, comme on a l'habitude de le faire tey dañuy ñëw doxantu kër ndaanaan ndaanaan bi ñu doxantu kenn dootu ko nattable fii ci senegal alors ku wax baay dem ba Faye wax ne wax dëgg yàlla mooy doomi Vieux Sagne Faye rakki mbay Dieye Faye donc mm-hmm. bu ñu ñëwee këram tey ci bésu korité war na Mbaye Demba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Feeling Dakar. waa Bamba maa ngi lay nuyu bu baax ah, di nuyu Feeling Dakar. xam da ngeen bëri Feeling. <laughs> Ah, di baalu ñëpp àq. di la dalal fii ci kër gi. macha di wax naan senegal yàlla na fi jàmm yàgg. amiin waay nuyu suñu président. muy nuyu sama yaay ji aji mbay di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin sama yaay ji. amiin yaa rabbi di ñaanal alaaji bi sañ fay fa mu tëdd suuf oyof lool ci kawam borom bi xaaral ko àjjana. amiin may nuyu kilifa diina yëpp. ndeysaan di nuyu sama sëriñ nag sëriñ Babacar Sy di nuyu kilifa yëpp daal di wax naan. réew mi daal yàlla na fi jàmm sax. amiin di baaluwaat ñëpp àq. amiin amiin fii sunum réew. ba fay Demba Faye euh, jërëjëf mais tey nag ni ñu la fekk nga euh, sa lii moom yaakaar naa sañ sa yàgg na yàgg na ci ngéwél. waaw maa la wax génn fi. waaw lii nag lii nag ki fi génn mooy sama xarit muy Moussa jóob musaa Diop waaye lii ma sol nag. waaw euh, sama xarit. waaw maxu suba teel. ah suba teel waaw. Ah, macha allah waaw moo ma jox lii ma sol. ah Matar Diop di ko bu baax di ko baax moom it. Matar Diop ndeysaan ah ndeysaan di wax naan daal Moussa jóob daal moo ñaw lii. Mhm. waaw. ah toog ba mu yàgg damay wagasu. <laughs> waaw dëgg neexul waaw dëgg neexul de maa la ka wax ah Moussa Diop ak maxu maxu suba teel fi ñu jaar en tout cas euh, nooy na ñëpp yaakaar naa ni mhm. foofu laay foofu laay doore sax maxu suba teel boobu ku ko xam-xam ne moom itam yaakaar naa ne mooy borom suba teel musique ñu ngi koy nuyu de passage aussi Baye Demba euh, mu mel ni bu ñu nekkee ci weeru koor wi itam euh, géwél yi dañuy aj seen i koog mhm. buñ ci jógee nag tubaar fa kàlla nga xamante ne bi dangeen ngeen a war a tekkee quoi lu fi lu fi neex rek yéen la biir gi du koy dundee waa koor gi ni koy dundee mooy euh, woor ko ci jàmm rek mm-hmm. ndax jullit moom dana jullit li nga war a def mooy julli mm-hmm. teg ci woor mm-hmm. weer wi nga xam ni tamit weer wu sell la te loo ci ñaan borom bi mu nangu nee naa la lii borom bi rek moo ko mën nga xëy suba lekkoo dara dara dara duggul sa biir ah lii yàlla rek moo ko mën di wax naan weeru koor moom bu ñëwee moom dañuy jël lengay aj ko ci kaw. Uh-huh. ah. Uh-huh. xam nga junjung moom. Uh-huh. fu mu yëngu moom. <laughs> fu bari. <laughs> booloo bari. waaw moo tax daal ñu naan yàlla na jàmm yàgg daal. yàlla na jàmm yàlla na jàmm yàgg te war ko ci bisimilah. génn ci ci alhamdulilah rabbil alamin. Mm, macha ah? di wax naan lu waay jàppoon. yàlla na gën a yokk. waaw lu waay jàppoon yàlla na gën a yokk te suñu réew mi nag di réewum teraanga teraanga rek moo nu war. wallaay wallaay hmm? macha allah. di ñaanal ñëpp jàmm. macha allah ñu nekk ci hôpitaux yi feebar man baay dem ma maa ngi leen di ñaanal ñu wér jàmm borom bi fëgg seen bopp. Mhm. ba ñu dellu seen kër yi. Mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi ah, kër googu nga xam ni euh, kenn ñaanul yàlla dem fa. maa ngi leen di ñaanal yàlla nañ fa jóge te bañ fa duggaat. amiin hmm? ñaanal nag ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy aar. Mhm. muy gendarme policier yi. Ah. di leen wax naan seen liggéey métti na ñu leen di masaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di leen wax naan yàlla na jàmm rek ci ñoom. jàmm rek ci ñoom. Mhm. macha allah alors Baye Demba Faye bokk na ci euh, artistes yi nga xamante ne bi ñoom ñoo gën a discret bu ñu waxee discret mooy kenn du ko dégg ci dara Baye Demba tout le temps liggéeyam rek ci lay concentré wu alors. même su fekkee ne da nga bokk ci famille bu rëy boo xamante ne bii macha allah ñëpp leen xam Sénégal sax yow da nga discret pourquoi choix boobu Baye Demba nekk nitu jaamu nekk nit ku discret depuis bi mu jógee ci ndongoloon dem si yàlla si ba tey donc même su fekkee ne da nga koy dégg sax doo ko dégg ci dara loolu liggéeyam ko waaw ñun nag moom li ñu yaree moom ñun sunu baay daf nu yar muy El Hadj Vesañ Faye ndax daf nu yar baay joo xam ne dafa neex a tiituroo. Mhm. ku nekkuy sa ku ne ku sa baay rek nga ne El Hadj Vesañ ah kuy sa mag ñu ne mbay jéey loolu rek doy na yar ah. ah wallaay moom nag daf nu yar nag doo ñu dégg ci dara te ñaanunu yàlla ñun moom lépp loo ñuy dégg moom mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla nga ñuy dégg ci lu baax mais pas ci lu bon wallaay wallaay ndax nag mooy li may wax rek mm-hmm. bàmba mm-hmm. nee naa gën réew mi mm. lu la yaru may mm. réew na mu ñu la ko may ah. mooy li may wax rek nee naa ñi mujjee juddu tey mm. kenn xàmmeetu leen ah lépp looy def da nga war a jiital yar yar dafa am solo ci doomu aadama gis nga boo réewee doo saf kenn wallaahi dëgg la jamono ji ñu nekk boo réewee doo saf kenn moo tax yaru rek moonu war concurrence bi dafay bëri ci seen domaine musique bi nga xamante ne bii daanaka mbirum coow la wala ñenn ñi dañ koo def fi coow mhm. Baye Demba kenn du ko ci dégg mu wax donte euh, lu nekk dafay xew mais doo dégg daal ñu ne dem Demba def sortie bi dal ci kaw kii euh, tout le temps moom dafay modéré rek nekk euh, nitu nitu nitu jàmm mhm. mais aussi am nga relation ak ñëpp lan mooy sa relation ak artistes yi waaw ñoom ñoom ñëpp sama relation ak ñoom jàmm rek mhm. ah mën naa ne si am na si ñoo xam ne maa leen jiitu ci aar bi hmm? mais ñoom ñëpp jàmmalaa sekk ak ñoom aw ma ca kenn problème te ñaanuma yàlla sax am ak ñoom problème ndax moom coow moom coow fajul dara dëgg la ah, muy ci artiste bu mag beeg bi ba wàcc ci suuf ñoom ñëpp samay xarit lañu mooy li ma lay wax man aw ma ca kenn xaar ma yàlla mm. waaw aw ca kenn xaar ma yàlla man nag damay géwal nag mm. yor sama puso rek di ñaw ci diggante yi man loolu rek moo ma war leneen man keeruma leneen. Hmm. loolu rek moo ma war. ndeysaan waaw euh, depuis euh, après ndem si yàlla si ndongolo ñu ngi la doon gis donc ci orchestre bari bagage nga koy euh, tëggal moom Titi. Hmm. tey jii jóge nga fa dem ci Pape Diouf group cest dire génération consciente foofu nga nekk léegi. alors jóge bi ak ñëw ci Pape Diouf bi lan la dafa am problème wala c'est juste que da nga bëggoon changé non problème amu ci rek. Hmm. mooy rek dafa mel ni comme crise ak. merci rek. <laughs> waaw dëgg la de changé club waaw. mais teewul nag diggante bi mi ngi rafet ba léegi ndax foofu mu nekk. Mhm. muy Prince Art. nee naa Ibou Ndour sama xarit la ngóone waxi nopp di ko gis sax si Petit Gallé. Mhm, dëgg la ni nekk ak ñoom. dëgg dem na ba Petit Gallé bu ma xale gisul sax. Mhm. dañuy wéet. waaw mais yooyu yëpp day tombeek ma war a Pape Diouf nekkati leen mais titi sama jigéen la moom amuñu benn problème. waaw yow yaa décidé changé quoi. waaw Titi album bi mujj tëgg naa ci. ah lu ma am dama ciy woo. ma koy nuyu sama frère boobu nga xam ni tamit lu mu liggéey rek gongu. d'accord ah? mm-hmm. foofu nag moom bi ma fay kii moom mën naa ne jóge ma fa. waaw mais liggéey moo demee noonu. liggéey moo demee waaw. parfois da ngay bëgg def yeneen touche. mi ngi noonu. Pape moom it xam nga sentir ma ci groupe ma koy nuyu série bébé baas. sentir ma ci génération consciente. ci laa ci laa fa ñëw bokk fa mais teewul bu ma waree def sama liggéey dama koy def. mais maa ngi ci groupe bu génération consciente. d' accord mhm. alors euh, naka nga gisee génération consciente tey bu dem ba ñëwee en tant que percussionniste bu mag boo xamante ne bi yàgg na di tëgg. Mhm. donte ñi nga fa fekk ay ndaanaan lañ sa liggéey euh, foofu nan nga ko sentiree biir génération consciente yan tous nga war a apporter yu bees. waaw gars yi fa ne maa ngi leen di sama gars yi ñoom it ñu ñu baax ñu neex a nekkal. Hmm? di leen nuyu bu baax waa génération consciente bi mu fa ñëwee tamit fekk naa fa euh, liggéey bu jaar yoon ma ñëw yokk ci sama tuus ma nit uh-huh. lin naa yokk cere dolli ñeex waaw dama ñëw yëngal gësam mënul ñàkk waaw uh-huh. ñu neex a nekkal gars yi bu ñu nekk ñoom dañuy kaf ree comme ni may nekk waa group 5-5 rek bu ma nekkee ci groupe boobu noonu laa fee mel relax ñu fo bu xalaat jotee ku su ne ñëw joxe ca xalaat ah ndax nag ñi fa ne nag danoo bëri talent waaw. génération consciente noonu laa fa nekkee. noonu nga fa nekkee macha allah. Mm-hmm. ngay def sa carrière également sa carrière solo loo xamante ni bi yaa ngi joué ci boîte yi donc yaa ngi euh, def loo xamante ni bi ak sañ-sañ rythme ah. sañ-sañ waaw groupe sañ-sañ. voilà est-ce que du la yàqal dara par rapport ak génération consciente. non du ci yàq dara. du ci yàq dara xam nga nag man boo gisee nag euh, Baye Demba. Mm. chaque korité ak tabaski dan ma ko xamee hmm? dan ma ko xamee ma koy tëgg ba yu ñëwee ba yu ñëwee bu ma gaa yi soxlaa pour ma liggéey ak ñoom ma liggéey ceeg ñoom waaw mais du yàqal dara ak sama liggéey ak génération consciente d' accord euh, korité yàgg nga ko di ko tëgg soirée sénégalaise tey jiitam yaa ngi woote soirée sénégalaise. waaw mais almadi lay doon nga xamante ne bii ku euh, euh, reer ba pare tubaar fa kal tabaski ba korité ba pare foofu ngay dem ngir ñu reesal fa yëf yi. maa la ko wax. waaw ah, kii five xam nga tey. Mhm. tey nag Bamba. Mhm. sama waa ji. Mhm. tey Bamba yaa ngi ci biir. Ah, ah bien sûr maa ngi ci biir tey sama yëf ndax nag danoo toog un mois. yëngaluñu junjum. cool yënguwul. mëmmëng yënguwul tungune yënguwul ndeer yënguwul gorong yënguwul moom miy dirigé moom mi ne ci kanam wallaay dëgg la léegi nag comme xale yu jigéen ñi nag danoo ñawlu woon jantal mel ni ñawlu dama leen di woon tey ci bés ci bésu korité bi fële ca Queens si maanaam five Bamba tey loo namoon ci rythme hmm. boo ñëwee ma jox la ko de maa la ko wax maa la ko wax tey loo namm ci rythme tey boo ñëwee incha allah ma jox la ko ndax baara mbay ji dina fa jolli wu jar dina jolli ceebu jën dina jolli ah dagañ gi dina jolli gars yi daal ni ngi wàcc te waa groupe 55 foor nañ sabar yi yéegal nañ sabar yi ba mu wow koŋ geleñ ñi dama ko xooj nag ci ndox maa la wax loolu dem tàggu ji maam mam maam lëg daawur mu ne ma demal maa la wax loolu mi ngi noonu kon daal tey daal ah. fële ca kiwins lan maanaam five maa ngi woo ñëpp ndax entrée bi mille la. VIP 2000 francs. VIP 10 000 francs mais dina mais mais dina je pense. parce que itam tey. Mhm. nit ñi bu ñu jógee ci côté bi dañuy bëgg fu ñu génnee feexal seen xol. donc ci almadi bi rek lay doon et puis euh, ban heure la ñu fa mën a xaar nit ñi exactement. waaw daal euh, zéro heure daal. zéro heure dina bëgg naa mu fekk fa gaa yi. mu fekk fa ñëpp macha allah bu ko defee dinañ ñëw installé yéegal nañ sabar yeeg yëpp. Hmm. te daal dara du doy est-ce que amul ay surprise yu ñu mën a xaar aussi waaw parce que comme korite la te dañ la ci tàmm mhm, ndax xam nga li ma lay wax naan du lépp la ñuy wax du lépp la ñuy wax dëgg la waaye lépp surprise la ci biir mm. sama mbokk artistes yi ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ah feccakat bi maa ngi lay woo tëggkat bi maa ngi la ciy woo waykat bi maa ngi la ciy woo ah ba si yéen yéen ñi nga xam ni tamit tey lu fi rafet yéen a ko wane. ndeysaan ah, Bamba. dëgg la ak Feeling Dakar. wallaay wallaay xam nga dakaar nag moom. Hmm. nee naa la Feeling dakaar du du mën a fii lay yem. am na yeneen ñu ñuy waaj te bëgg naa ngeen takk ci rëpp bien sûr ngi waaj bien moo tax moo tax euh, bi ma ko sama xarit waxee Matar Waale. Matar lii. Mhm. Euh, faaw ñu ñëw euh, nekk ci biir parce que itam yaakaar naa ne dañoo namoon lii nag. dañoo namoon dañoo namoon juste toujours korité bu ñu nee bay Demba Faye donc ñëpp dañuy daw jubal yi mais Baye Demba bëgg naa la laaj tuuti ci actualité bala ñu bala ñoo tëj joxante five fileeg ngoon. Mhm. ñu waxtaan tuuti ci li nga xamante ne bi mooy yaakaar naa actualité musique parce que bu ñu gisee Baye Demba naam am na relation ak ñëpp mais. Euh, ces temps-ci concurrence bi souvent dafay tar ci diggante euh, Wally Seck di Diop dafay tar souvent bu ñu nee euh, diggante Viviane ànd na ak Wally def nañu dara Queen Biz ànd na ak di Diop def nañ dara. xeetu concurrence boobu ñuy dundee musique bi yow lan moo ci sa xalaat. waaw maa ngi nuyu waali maa ngi nuyu di Diop. Hmm. sama rakk ñoom mën naa ne ñoom samay rakk lañu. ah maa ngi leen di nuyu ci baax te vraiment seen liggéey tamit rafet na musique nag mënu ci ñàkk Bàmba. musique mbëkkante mënu ci ñàkk mais boo gisee mbëkkante beeg yëpp ba léegi dóorante wuñu waaw dóorante amagul de. waaw ba léegi songante wuñu te du am sax <laughs> ndax gis nañ fa gis nañ fi sunu mag Youssou. wallaay ak Omar pen wallaay dëgg la. ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mais dara mosul ñaaw. te daañu daje lañ mujjee. man daal li ma leen di wax daal nan xool foofu rek. waaw ndeysaan waaw nan fa xool. liggéey bi gaa rafet na trop. te mënul ñàkk. mais ba dem li nga wax neex na ba léegi dóorante wuñ. <laughs> mais mais mais amul leneen. <laughs> dóorante dégg li mu la wax ah, walaay dégg la <laughs> fële xam nga xeex bi xeex bi yëpp xam nga fan la mooy musique bi ñuy def foofu mooy xeex bi waaw tëgg mu saf nga jox gars yi ah, foofu la yëf yi ne waaw fala la affaire bi nekk amul leneen ñi nekk ci ginnaaw nag dama koy waxaat rek ñi nekk ci ginnaaw ah? mm-hmm. waaw mooy fans yi waaw wàcce leen tension yi tuuti nag fans yi waaw na rafet rek nañu xam ne nañu xam ne ñoom ñëpp bokk ndey ak baay ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay drapeau bi vert jaune rouge étoile ci digg bi et puis yow am nga relation ak Wally parce que damay dégg tout le temps muy wax sañ-sañ donc euh, bu dul yow di Djibi Diop fay donc vraiment mu am mhm. ay relation ak yéen non Wally Wally Wally loolu Wally c'est fami famille c'est la même famille Wally dara mu nekk kër gi ndeysaan moom xam ne li may wax Wally day ñëw kër gi ci ajama genjaay ndeysaan caat bu jigéen dafay ñëw ba pare mbokk bi dafa dox coon sekk ak ndey misel lam ngéwal loolu cosaan la woon waaw ko ñoom Fodé mun kër ga ne Médina seen kër rue 23 ak 22 tali moo leen séparé rek wallaay dëgg la mais loolu yëpp benn la ndeysaan ah ndeysaan li may wax daal mooy hmm. ñun artisi nan bokk ndey ak baay dëgg la te nag bokk ndey ak baay bi ah dafa war a dëggu na sincère waaw na sincère surtout waaw surtout man nag baj géwél nag loolu rek loolu daal laa leen di dénk. bu dara ñaaw. baj géwél beneen bi nag mooy. Mm. ñu ngi waaj nag loo xam ni doy na waar. Bamba muy reggae mbalax. reggae mbalax. mbalax bu doy waar. Ah. gaa yi ko déglu léegi. ma ànd ceeg Ruus. ànd ceeg Mbaye Dièye. ma ànd ceeg Fallou Faye. xam nga moom xam nga mbay moom dafa bari filim. mais loolu dina gën mbay def na loo xam ne incha allah bis bu génnee. ngeen dégg dëgg reggae mbalax bu doy waar. bàyyi dem loolu dama ko yàkkamti ni ma koy déggee nii rek dama ko yàkkanti parce que boo ko déggee di nga yuuxu de incha allah reggae mbalax bu neex lan def te dina génn léegi. reggae muy waale tamit sama mag. Mhm. muy yuusu su maa jigéen. waaw soo ko jigéen. bi rek nga ti ma saa su ko paate sàmm la ngaa ñu leen. mu ngi waaj Bercy. waaw. Youssou waaj lu rëy muy waaj lu rëy sama mag jooju man naan ko mu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim te génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin hmm. yóbbu yóbbu na fa ndaanaan bu ne laa ilaaha illallaah jàppale na ku balaa ngaa xam ne Bercy neex commencement Bercy ak après Bercy waaju Bercy doy na waar di ko wax na ko grand na foofu toj na foofu toj te incha allah ay ca Baye Baye Demba donc kon ñu joxante rendez-vous incha allah euh, ce soir et euh, five ex euh, Queen donc mhm. ñu joxante fa rendez-vous à zéro lan ngay tàggatoog fans yi ak sénégalais yi waaw li leen di tàggatoo mooy Baye dina ñëw ak yeneen i fem Bamba mm. maa ngi ñëw te fans yi il faut ma jox leen mbalax mu neex ndeysaan mbalaxu fo rek lay doon nag ah waaw di nuyu sama jabar yi Fallou Fallou waaw di nuyu samay doom ndeysaan di nuyu tamit sama goro aram say di nuyu bu baax di nuyu waat samay fans di wax di ñaanal sama yaay ji mu yàgg fi lool. amiin waay di ñaanal sama waa ji nongoloo jam jaalo mi si jaaj ma sàmba nee na faal. di ko wax naan ko bro fi nga tëdd yàlla na fa suuf oyof lool sa kaw. maa ngi nuyu waa Pikine di nuyu Medina Fass may nuyu nag sama monsieur le muy Bamba Fall. Bamba Fall Bamba. waaw maire Medina maire ministre. di ko baax. nit ku baax waaw di ko baax bëggoon sama papa lool. di ko wax naan ko monsieur le maire fi nga teg sa loxo baax na. bamba ku baax la waaye ku bëgg artiste yi. balaa kay xam nga toog ak moom. bamba il faut nga toog ak waa jooju. kooku nitu kese la. nitu nitu jàmm rek mën na liggéey lool. Hmm, waaw. moo tax ma koy wax naan ko euh, ak Cheikh Ba. Cheikh Ba waaw di ko wax naan ko lépp benn la ci Médine rek. waaw lépp lépp Médine Cheikh Ba lépp ci Médina la di nuyu waa Médina fii ma nekk muy cité avion Bartin maa ngi nuyu daal ñëpp di wax naan ci kanam tuuti nag rendez-vous fële ca Five. rendez-vous Almadi. mu ngi noonu <laughs> jërëjëfati baa Demba Faye donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom itam. di mm-hmm. euh, gërëm en tout cas internautes yi nga xamante ne bi yéenay teewlu yëpp. nii lay euh, demee ci Feeling Dakar ñëw kër ndaanaan bi xool nu mu dundee korité bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Baye gërëm nañu la ci dalal bi ñu dalal sa kër macha allah moo nekkoon ci régie bi. di nuyu Aline bu baax. Aline caméraman bëggee ci yow. <laughs> jaajëfati. del déglu del xool.